ñu tànqe ko ci dégg nga am géejug sëñ Tuubaa googu nga xam ne mooy ay mbindam ak i dénkaaneem ak lim daa fi mu nim daa yare loolu nag dañ ci sant yàlla rek ci eh, maanaam sëriñ Tuubaa di wax tam ne waxtu wu ne dañuy wax ne sëriñ Tuubaa nun ginnaaw ay taalibeem ay lañ te moom la ñuy xeeñtu li war a jiital mooy lam bindal boppam ñu xëntewoo di ko am